ñuy wax nii mais répercussions yi mais weesu na ci affaire ray bi mais ci xam-xam bi boo waxee benn moo bu du waxoon na fi teel ci ñëpp dal ci kaw mais répercussions yooyu muy am ci niveau suñu étudiants yi dans toute cette histoire là waxuma la koo xam ne amul lu mu lekk biir bi feesul nga romb leen pendant huit heures de temps damay romb ci ci ci kii bi ci euh, ci foyer bi romb di dawal sama oto. ci banque bi ci banque bi mais ma seet ay nit yoo xam ne pendant. quatre heures cinq heures six heures de temps ña nga toog entassé wu ci mbedd mi toog mais xalifa balaa nga naan naam ne fa. non non mais non mais du sax loolu. daal jël benn baax bu dee. non non non monétisation monétisation yi am léegi. non non non man man man c'est autre chose. non man je vais même plus loin. Hmm. dama ne euh, il faut que ñu am courage yenn décision yi nga xam ne comme Afrique la ñu nekk te président yi. ñooy jël ay décision yoo xam ne day impacté ay génération ki génération bi ñëw bu ñu demee bàyyi fi coow li mooy pertinance wu yenn décision yi ak répercussion yi muy am ci hmm. ci askan wi ci ci ay année yu bëri xalifa hmm. xalifa dafa nang rek ñumu hmm. ne dama ne aujourd'hui nit am na bourse Sénégal dem am na bat jox nañ ko bourse mu jàng quatre ans am liggéey